waa Pastef euh, ñu ngi ci bon grande pompe nga indi maanaam départ moom ñëpp xam nañ ne départ doole ngeen indi dafa mel da ngeen war a dugg ci koñ yi dafa mel dafa ngeen pare pour dugg ci station yi wax maire yi wax paa yi ni leen Abdoulaye Wade ku ànd ak Ousmane ab Abdoulaye Wade ngay wooteel yéen dafa mel ni li gën am solo ngeen def mitim leen def leen daal da ngeen dem ci porte à lan moo war a stratégie boobu lan la jërëjëf Diop Taïf soo gisee convoi bi ñu def ak taxawaay bi ñu am ñun dañuy ay liggéeykat yoo xam ne li ñu am Sénégal moo ñu ko may kon senegal lañ koy delloo te dama gëm ne fi ne nii ku bëgg fay bor Sénégal ci loxol Ousmane Sonko nga koy teg loolu boo ko ci tegee foog naa ne képp kuy Sénégal wala kuy sénégalaise ak fu mu mën a nekk dina ci jot di wax ne nag ñun dañoo nekk fii ci dëkk bu sell bi te sañ sëñ Muntaxa am lu mu waxoon Ousmane ak ñi àndal ne leen dama leen ameel bor bor boobu leen sëñ Muntaxa ameel nag ñoom élection locale yi am gis nañ ci pay ndax foog naa ne li ñu gagné ci ay maire yi bari na trop kon sëñ Touba fay na leen te Olof Ndiaye daf ne te sëñ Abdoulaye daf ne képp ku liggéeyal Serigne Touba murid lay fay. ngóor si ñu naan Macky nag lan moo tax mënut a gagné Touba di ñàkk aussi fépp fu am murid nekk Serigne Touba daa newut ci xolu président Macky Sall moo tax ñun murid yi Macky Sall mënta nekk suñu xol amul organisé fépp foo gis am murit na fa rek xamal ne Serigne Touba nga fa dëkk bi nag dëkk bi nag dafa am enjeu bu garaaw bu fi nekk parce que fii Touba la di dëkku diine te ku ne xam na ne Macky Sall ak ñi mu àndal barki Dembo Ndiaye rek ki jiite ngóor jigéen yi LCBT tey ñëw na fii ci pale bi kooku dafa am jëkkër moom ki fi ñëwoon ci Macky moom dafa am jëkkër di taal cuuraay ay fer lu ne rek ñëw na fi lëngoog moom ñu ànd waxtaan avant local yi ñëw mu jàppale ko ndax xam nañ ne bu amaatee majorité kenn wérantewul ne euh, loi bi du jàll te sëñ Muntaxa bind na pétition jox ko mu lank lépp lu naqari sëñ taxaa nag ñun murit yi ñoo ci war a taxaw léegi Macky Sall sëñ Muntaxa ñaan la nga la ñaan na la nga lànk titre foncier Touba bi lel moo tax ñu def découpage bi titre foncier Touba mënta jàll Ablaye Wade ku ne xam na ne moo yokk titre foncier bi def Masalikul Jinaan terrain boobu mu jox sëñ Touba loolu rek doy na ndam ak bilan comprendre nga baax loolu rek doy na bilan découpage bi nag Macky Sall koo def heure bu xëyee luy wàññi Touba wala luy xeeb Touba ci loolu lay dox. non romb na crime crime kenn nay dee waaye ngóor jigéen ñi bu ñu fi nekkee di takk fer muy yëngu yàlla day dëpp asamaan si ñun ñëpp ñu faatu. dama ne Macky Sall buñ ko fi bàyyee sun doom yeeg sun sët yii di juddu ñun rëcc nañ waaye sun doom yeeg sun sët yii di rëcc diñ ci gis nit muy daw diñ ci gis nit muy daw caaya jee yëngu fekk aw ah, Moustapha Diouf Moustapha une seule question dafa am euh, sa benn boo xam ne ku la masaan gis gis la ak moom muy Abdou Sylla tey mu nekk ci loxo yoon lan nga ñu mën a wax ci ay mbiram waaw Abdou Sylla dañ koo jaay doole euh, dañ koo jaay doole parce que ku ne xam na ne dañ koo jàpp ci événement yi moo ngi ñu doon manifester yëpp ñu bàyyi leen ginnaaw bi ñu ko bàyyee nag la ñu ko proposé xaalis ak ay oto affaire yu bari mu lànk di bañkat ci sama kanam ma dégg lépp xam lépp ni mu demee bi mu lànkee lañ ko jàppaat yóbbuwaat ko ci kaso bi waaw di ko jaay doole ñi ngi ñaan nag ñu bàyyi ko nu mu gën a gaawee deful waxul ñi mu àndaloon ñëpp bàyyi nañ leen moom ñu bàyyi ko ba mu neex leen ñu ger ko mu lank ñu jël ko tëjaat ko ci kaso bi ñu ngi koy ñaaw lu baax a baax te incha allahu rabi dinañ ko xeex wan loof jaajëf merci